cëy yàlla Louga ak Diourbel ndeysaan ndeysaan comme yaa ko jël mu bàkk interrogé ko mu wax ma xam lu mu lay làkk ndeysaan ñu ngi noonu ci combat bi dox ci diggante Diourbel ndeysaan ak ak Louga ñu ngi ci combat bi Ndeysaan combat yaa ngi noonu. Ndeysaan troisième place quatrième place baa ngi noonu. mbokk yi xale yi actuellement ñu ngi wane seen bopp ci wàllu lamb 66 kilos la. Ndeysaan. Ndeysaan ñu ngi noonu. Ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan dox ci diggante Babacar seen ak Mame Mbathie Mame Mbathie Gueye ñoom ñaar ñu ngi noonu ci compétition bi ñu ngay laale ndaysaan Babacar Sène jàpp na mu bañ génn nañu ñoo nga ca jàppante nañu jàppante fàqan na ko dara xewul dara xewul xale yaa ngi noonu jàppante nañu faqat na <laughs> waaw waaw yi ñu ngi noonu jàppante nañu ndaysaan jël na ko faqat na ko ndaysaan ñoom ñaatu yomb jël na jàppante nañ dox ci diggante Louga ak Diourbel temps ba jeex na noppalu leen bi départ Louga mbokk yi arbitre bee noonu di waaj a sifflé waat dox ci diggante troisième place ndeysaan moom la ñuy xëccoo Mame Mbaj Gueye ak Babacar Sène Babacar moom nga jàkkaar lool Mame Mbadj moo la woon ginnaaw Babacar Sène ak Mame Mbadj Gueye daw nañ jàppante jàppante nañu muy xew Babacar Sène mu koy fàqat Mame Mbadj na Louga Diourbel Babacar Sène Diourbel Mame Mbadj moo koy xëcc bañ na Mame Mbadj jàpp na daan na ko Mame daan na Babacar Mame Mbadj na ko Mame Mbadj daan na ko Mame Mbadj daan na Babacar Ndeysaan daan Sambeen Ndeysaan 76 kilos ak Mor Ndiaye ah. Ndeysaan Mor Ndiaye Louga seeni Sambeen Diourbel arbi bi sifle na seeni nag ndaanaan la champion la waaye Mor Ndiaye ndaanaan la moom aussi compétition bi ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp ndeysaan daw na fàqat na dara xewul daan na kay seeni bu Jurbel daan na seeni daan na ma ngay dem oo oh, oo oh. oh, dox ci diggante seeni bu Jurbel ak Mor Ndiaye ndeysaan waaw kon ak Sangoña jàpp na ko Issa jàpp na Issa sol na ko dëpp naax jaxabal na ko daan nañ ko wala déet mbot yegg nañ suuf laa ilaaha illallah Issa Sambène bañ na bañ na daan na ko laa ilaaha illallah Issa Sambène daan na Sangoulé Issa daan na ko ñaa moom Issa Sambène Isa Sambe daan na ñu ñëw ci 100 kilos yi. ñu ngi noonu. Diourbel jël na troisième place bi. dañoo xool ba xam. Louga day sauver l'honneur ci digganteem ak Diourbel. moo dox ci diggante Mohamed Bousso. Boy Faye cent plus de 100 ak Souleymane Camara. ndeysaan ñu gën ko xam ci Baye Peul numéro 2 Boy Faye ngeen jàkkaar lool Baye Peul numéro 2 moo leen wan ginnaaw ndeysaan ñu ngi noonu noonu Boy Faye Souleymane Camara Boy Faye Souleymane Camara Boy Faye Souleymane Camara ndeysaan ñu ngi kamara booy Camara Boy Faye ñu ngay ñoom ñaar lu nar a xew ndeysaan Souleymane Camara Boy Faye arbitre bi atte na ñaari mbëri ña lewaatoo Souleymane Camara Boy fay Souleymane Camara ak Boy Faye Souleymane Camara Boy Faye <laughs> ku nekk ku nekk ak sa problème ndeysaan sol na daan na ko Boy koy daan Boy Faye Souleymane Camara wër na ko Boy Faye wër na ko ndombo wër na ko war na ko ndombo Boy Faye war na ndombo Boy Faye war na ko ndombo que da koo nar a buddi ba ci kaw dóor ci suuf wala da koy wala da koy biij wala da na Boy Faye daan na ko Boy Faye daan na ko ndeysaan Souleymane Adama Souleymane bañati Adama Souleymane ndeysaan nangul Boy Faye ma ngay jooy jël na troisième place ma ngay jooy Boy Faye ma jooy ma jooy